أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne di jàngalante ak a fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ñu tolloon ci téeram bi nga xam ne moom la tudde Munawwirus Sudur ci suñu bind bu mujj ñu taxawoon fi nga xam ne fi la sëriñ bi doon leerale ni mu tudde téere bi waaye it ñu yeggoon ci ba fi sëriñ bi doon wax radiallahu anhu doon wax ne ki nga xam ne mooy aji xelu dëgg daal mooy ki nga xam ne day xool ci digle yi ak tere yi muy bàyyi tere yi lépp waaye di jëf ndigal yi kem kàttanam wax it ba tey ne képp koo xam ne day xool ci àdduna te du xelaat na xam ne mi ngi jëng boppam teyit mi ngi tëj boppam ndax àdduna dafa doon loo xam ne su ci nit ki dee xool te du xelaat ci li nga xam ne mooy li ko li tax suñ borom andi ko fi bu boobaa ak dundam mën na koo def ci loo xam ne pertaangi rek la koy jural ci bind boobu lañu taxawoon suñu bindu tey di continuer fi nga xam ne foofu lañ taxawoon rek ba tey sëriñ bi ji ñu misaalal àdduna mu ne misaaluha misaala moom àdduna ajuzatun am màgget mu jigéen la daniyatun mu suufe fi aswubin ci ay yére xafiyatin yay aji nëbbutu nafisatin di aji seer wala fii xafiyatin di aji nëbbutu fii aswubin ci ay yére nafisatin yu aji yuy aji seer yaxsibuha dana ko njort al ahmaqu aji dof ji wala aji dese ji xiina lam yara ndare bu gisut si walibaasiha ndare yéeréem ya allazi ya nga xam ne xat xayyara gëlëm loo na ko xaaniyatan muy aji jongomaw mustadrijan muy aji muy aji jayu bi xobbiha ci bëgg ko bi xit batin ci ak labat tur di goog dana alak allazi ka nga xam ne ahabbaha sopp na ko sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñuy misaalal foofu àdduna ak ni nga xam ne noonu la ñàkke solo mu ne àdduna daal bu ma leen ko doon misaal mi ngi mel ni soxna su jigéen su màgget waaye nag jël ay yére yu seer a seer a seer yére yu am valeur daal di koy sol ni nga xam ne noonu la dof bi di xoole ci kaw yérey soxna soosee ba jàpp ne soxna sii de xale bu ndaw la ba loola man koo wor ndax yére ya nga xam ne moom la sol nee na àdduna noonu lay war a nit kon day mel ni àdduna dalay taaralal ci kawam nii ba nga gis ne àdduna di lu taarala lu am solo la waaye boo xoolee ca biiram dëgg dëgg dëgg benn taar nekku fa waaye seen solo wala seen njariñ suñuy wax nekku fa moo tax sëriñ bi ne nag saa boo xamee ne ku du xelaat wala ku dofe dafa gis àdduna moom day da koy sopp lool di daw ngir jëm ca di daw ngir jot ca loola lépp la koy waral mooy àdduna moo koy won boppam di ko won ab taar ci boppam di ko won ne moom mi day jongama la joo xam ne mën na ko defal lépp loo xam ne moom la soxla waaye jongama la ju taar joo xam ne su ko amee am na léppi àdduna noonu la ko àdduna di mo wonale boppam te fekk na demewut noona moom àdduna daf koy jaay rek ngir bëgg mu am ak cofeel ci moom waaye ngir bëgg mu jëm si ci moom bu baax a baax ba bàyyi lépp loo xam ne mooy ndigali suñ borom yi wala na nga xam ne noonu la ko war a yittewoo dëgg-dëgg du ko yittewoo ngir ne àdduna daf koo jay ba mu yittewoo àdduna rek moo tax sëriñ bi ne kon àdduna mi nga xam ne moo demee noonu nag xatta isa mabtazza saa boo xamee ne futti na moom àdduna maa la nga xam ne xat labisat soloon na ko wajadaha nga fekk ko mu faadatan mu di am poox di koo xam ne aji rëy biir la xat xobisat goog tëjeef na ko soxna soosu nga xam ne moom la lay nuróoleel àdduna di màgget googu nee na saa boo xamee ne futti na yére yi nga xam ne moom la tegoon ci kawam day da nga koy fekk mu nekk koo xam ne biir ba day rëy lool ne fëtëx awra aynin muy aji patt bët zaata shaybin di borom bijjaaw mumtina di aji naqari xet mustahjana di aji ñaaw bu saakoha tëflitam ya nag katuxla bi day mel ni ay mbaalam mbaalam maraha hadbin muy aji woos ay xef zaata xalxin di aji bindu maanaam di borom bindu janabin buy aji jeng zahiruha la feeñam yaxuru dana lor kulla musnibi képp koy aji bàkkaaru maanaam képp koy borom bàkkaar nee na àdduna moom mu nga xam ne moom la lu sëriñ bi melal noonu ci soxna soosu nee na saa boo xamee ne futti na yére yi mu soloon moom soxna soosu la nga xam ne mooy mbetteel ak déception bi nga xam ne moom la ci ki ko doon daw di jëm ci moom am nee na lu mel noonu rek ak mbetteel lu mel noonu ak ñàkk solo gu mel noonu moomu lay fekk ca biir àdduna kon nee na soxna soosu na nga xam ne noonu la mel ci kawam muy zahiram di la nga xam ne moom la sol ak la nekk ca biiram dafa wuute lool ngir gis nga nim la ko melalal nee na la bi mu soxna soosu bi mu futti ko biir ba dafa rëy lool nga gis bët ya pat nga gis bu tuflee tufli de xeeñ xunn li nga xam ne mooy bindam doon bind bu jeng boo xam ne su fekkoon ne la njëkk ngay koy gis dëgg-dëgg su fekkoon ne da nga koo gis dëgg-dëgg la njëkk nga koy labat bu boobaa doo jëm ca moom ndax doo ko labat ndax du la jariñ dara kon li nga xam ne moom la soloon mu nekk ci kawam rek mu yére yi nga xam ne moom la soloon loola moo la war ci moom ba tax nga dox jëm ca moom ngir xot ba ji ko waaye ngir bëgg koo takk comme soxna nee na àdduna nag noonu la mel li nga xam ne moom la lay woon ci kaw bokkut ak li nga xam ne moo nekk ci biiram ndax li ci biiram lépp lépp ay wor kese la waaye li ci biiram lépp lépp ay naxe kese la yàggut te it diir bu gàtt gàtt la kon bu fekkee ne nag loolee nga xam ne mooy àdduna daf laa jey ba nga dugg ci biiram daf laa jey ba xëcc la ci biiram bu ëllëgee daanaka bu lay wàcce wala bu lay gàcceel ci diir bu gàtta gàtt la koy def comme ni nga xam ne noonu nga amee ni nga xam ne noonu nga ñàkkee yaakaar ci soxna soosu ginnaaw ba nga xamee dëgg-dëgg mbiram bu boobaa it àdduna noonu ngay ñàkkee yaakaar ci moom saa boo xamee dëgg-dëgg mbiram waaye bu boobaa it day fekk jëm wees ndax bu boobaa dugg nga ci biiram ba mu wonoon la loo xam ne jàpp nga ne moo gën lépp ba ngay jëfe loolee te bu boobaa loola pertaangi rek lay indil doomu aadama bi moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fi l amwali wal awlaad na ngeen xam ne dunduk àdduna gii day dund la goo xam ne am ko kese la waaye dund la goo xam ne ay caaxaan kese la dund la goo xam ne daf leen di taaralal li nga xam ne moo nekk ci biiram moom àdduna di leen def ngeen di puukarantewu seen biir di bari lente ay alal di ëpp lente ay doom yooyu yëpp àdduna moo leen koy defloo ngir di leen xëcc ci boppam waaye na ngeen xam ne àdduna lu ñàkk solo la amul benn solo ngir ne am am po ak caaxaan rek daanaka mooy li nga xam ne moo ëpp ci àdduna kon jikki ba fi ëpp lente wala di fi sutante wala di fi ëpp diirante ay mbagg yooyu yëpp daanaka ay mbir la yoo xam ne pertaangi rek lay mën a jural doomu aadama bi ëllëg yowmal xiyam suñu borom di waxaat ci alquran ba tey ne wamal xayaatu dunya illa mataaun xurur na ngeen xam ne dunduk àdduna gii de du dara lu dut bànneex boo xam ne bu leen di wor la bànneex buy wor doomu aadama bi rek la kon doomu aadama bi war na ko bàyyi xel ba du jël yitteem jépp def ko ci ngir ne loolu bokk na ci li nga xam ne moo koy indil jafe-jafe ëllëg yowmal xiyaam am beneen waykat bu waxoon ne ala kulla cheyin maa xala allahu baatilu wa kullu naimin la muxaalata zail waykat boobu ne na na ngeen xam ne lépp lu dul yàlla dina ngeen xam ne day jeex te gépp xiiwal gu fi nit am tamit na nga xam ne yàgg-yàgg xiiwal googu day jeex mu gudd mu gàtt xiiwal googu na nga xam ne bisa ngi ñëw xiiwal googu gépp suñ borom daf koy jële ci say loxo jébbal ko ñeneen te bu boobaa doo ca man dara kon loolu mooy dunduk àdduna di dund gu gàtt goo xam ne nit ki waru fee def lu ñu koy xeebe waaye nit ki waru fee def loo xam ne bu dajee ëllëg ak suñu borom bi subhanahu wa taala di ko réccu moo tax sëriñ bi ne ginnaaw ba nga xamee ne kooku nga xam ne moo toppoon soxna soosu di ko bëggi gis na dëgg-dëggi soxna sa na mu mel lan la cay teg nag sëriñ bi ne adda kon mu mat ala yadayhi ci ñaari loxoom za nadamatin di boroomu réccu min kulli ma ci mboolem la nga xam ne adaamahu saxal na ko fii maa ca la nga xam ne moo daa woy na sëriñ bi ne na kooku nga xam ne de moo toppoon soxna soosu fu mu jëm mu topp ko ngir jàpp ne ab taar moo nekk ci moom ngir jàpp ne soxna su jongomawu la te fekk na yére mi rek moo ko doon nax te it àdduna noonu rek lay def nit ki sëriñ bi nee na saa bu demee ba xam dëgg-dëgg soxna soosu na mu mel la mu cay teg rek mooy day màtt ñaari loxoom daal di wiccax ngir lan ngir rëccu ngir bu xamoon ne soxna soosu dëgg-dëgg noonu la mel bu boobaa du du ca yàq temps waaye du ca du ko jaral dara dara dara kon adduna it noonu la mel saa bu nit ki xamee ne dëgg-dëgg lii mu koy woon bokkut ak li nga xam ne moo moo moo moom la bëggoon te it dem na ba rëccu fekk jëf fees bu boobaa la mu cay teg rek mooy rëccu naan bu yëgoon du def lii wala du def lee te yooyu yëpp bala mu la caa fekk nag nga. jàngat bu baax a baax xam dëgg-dëgg fi nga xam ne foofu ngay teg sa tànk moo tax mu ne amal la biibu ndaal aji xel ji fa matalaaqaha saa bu fi dajee ak jongama joojee mu la melalal yaf tashu day gëstu wa in raasu gisee al aza lor alqaaha mu sànni ko ne na ki nga xam ne mooy ki xelu day ki nga xam ne mooy ki am xel dëgg-dëgg day mooy ki nga xam ne saa bu gisee jongama ju mel noonu nan lay def day gëstu ba xam kii ndax daf koy nax wala li nga xam ne moom la koy won ci kaw rek mooy li nekk ci biiram saa bu gisee dëgg-dëgg yi na nga xam ne noonu la mel nag bu fekkee ne lu lu ko jaralut la bu boobaa mu wàcc ko fële su fekkee ne lu ko jar nag mu fexey def ca yitteem yëpp yëpp yëpp kon adduna noonu rek lay demee saa bu nit ki gëstoo ba xam ne adduna bii day lu ñàkk a ñàkk solo la bu boobaa la nga xam ne moom lay def moom mi nga xam ne mooy aji xellu daf koy teg dële daal di jubal ki nga xam ne mooy boromam bi nga xam ne moo ko sàkk andi ko fi te sàkk ko ngir lu dut mu jaamu ko waaye sàkk ko li dut ngir mu taxaw ci li nga xam ne mooy ay digleem waaye di bàyyi ay treem kon sëriñ bi nee na ki xelu dëgg-dëgg noonu lay def saa bu gisee jongama ju mel noonu day day gëstu ba xam dëgg-dëgg jongama ja la ko cay taxa la ko cay taxa am solo su fekkee gis na ko ca mu continuer waaye bu fekkee gisu ko ca mu taxaw niki noonu tamit aji xelu ji dëgg-dëgg saa bu gisee ki nga xam ne mooy àdduna saa bu gisee li nga xam ne mooy àdduna day gëstu bu fekkee ne gisul dara lu ko ci war a tax a yàq temps boobaa mu sànni ko fële fële kon loolu misaal la moo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu dañu ko misaalal nga xam ne soxna su mel noonu nit ki du xemme mukk di ca jëm su xamee dëgg-dëgg soxna su na mel kon àdduna it noonu la mel su fekkee nit ki xam ne dëgg-dëggi àdduna wor yi nga xam ne moom la làmboo ci biiram ak rafetal gi nga xam ne moom lay rafetal doomu aadama bi boppam ngir di ko soññ ngir mu jëm si ci moom saa bu ko doomu aadama bi xamee dëgg-dëggam bu boobaa du du ko def muy yitte waaye du ko jox benn wàccuwaay waaye fële la koy sànni ngir xam ne léppam ay wor la waaye amul lenn loo xam ne daanaka doomu aadama bi war na koo yittewoo ci àdduna ngir ñàkk solo goo xam ne ñàkk na ko solo mu ne wa masaluha misaali nañ ko moom adduna ba tey bextilaami naimi ci géntug aji nelaw man képp ka nga xam ne baaxa jaay nga ko zafira di nga tuuf bil ghanaimi ci am koom nee na misaal yi nañ ko moom àdduna ba tey mu mel ni géntuk aji nelaw ki nga xam ne mooy nelaw day suy gént day jàpp ne li muy gént de dëgg la su yeewoo daf ciy jot waaye nag saa bu yeewoo day fekk ne li mu doon gént lépp ndekete amut dara amu ci waaye da ko doon gént noonu rek ci biir ay nelaw waaye dara amu ci nee na àdduna it noonu la mel nit ki daa mel li mu fiy jëf ay ay li mu fiy def ci ay ëppalante wala lu mu man di doon ci ay puukarante yooyu yëpp nee na day mel ni gént gént rek day mel ni ak gént rek saa bu yeewoo loolee mu doon gént dootu ca gis dara nee na nag képp koo xam ne jaay nga àdduna moom mais jëndi ko la nga xam ne mooy allaaxira na nga xam ne ëllëg di nga bokk ca ñi nga xam ne ñooy way tuuf ña da nga bokk ca ña nga xam ne ñooy way texe ña moo tax ñu naa annaasu niyaamun fa isa maatum tabaxu nit ñi dañuy nelaw waaye saa boo xamee ne faatu nañ ñoom ñëpp danañu yeewu ngir lan ngir dunduk àdduna gi dafa mel ni nit ku nekk ci ay nelaw rek di gént waaye nag dunduk dëgg-dëgg ga te nga xam ne mooy dunduk dëgg-dëgg dëgg dund ga mooy dunduk ëllëg yamal xiyaam kon nañu ko bàyyi xel bu baax a baax te gën a wàññiwaat caaxaan yi ak pom yi nga xam ne moo nekk ci biir àdduna waaye gën koo ginnaawal moom àdduna ngir ne su fekkee ne bàyyiwoo ko moom àdduna soo defee lum la bégloo tey bu subaa dana la reeloo moo tax ñu naa tudd xekuka al yawma wa tubkika gadan àdduna da lay reeloo tey ba nga jàpp ne yow kese lay bégloo bu subaa ak ginnaaw suba mu continuer di la jooyloo kon def fi lu jar bu la reeloo tey bu ëllëgee bu la jooyloo ngay xarab bu boobaa loola jaru ko kon nit ki na sax bu baax a baax ci digle yi waaye bàyyi li nga xam ne mooy tere yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala di tere kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di wàcc foofu suñu kàddu di leen jox dig daje ci beneen jotaay incha allah di wax ni in uridu illa l islah